Boy Lo Max Kersi jël na ko laa ilaaha illallaah eh. man Boy Lo bu doon maa yow damay continuer xeex bi xeex baax na si yow jël na ko mu ngi koy ñooxu moom Boy Lo mu ngi koy ñooxu waaye Max mën na loolu comprendre na loolu ndeysaan ñaari xale yaa ngi ci Max Kersi ak Boy Lo waaye Baye Balla cey Pokola Balde ak Liss Ndiago le 5 laa ilaaha illallaah waaw bu ñu fàttali la première gamer bi ak Youssou Ndour loolu fii lay xewee ci Arène Nationale ndeysaan ñaari xale yaa ngi ci ñaari xale yaa ngi ci ba léegi nii Boy Lo ak Max Kersi ñoom ñaar bëri nañ combat bu yàgg bëri nañ combat bu metti Boy Lo Max Kersi bu soo waat bi yàlla ama tiim yàlla mi nu tiim xam na ni xaw ma la sax peut-être yaa ngi may gis te man gisuma la ñaan naa la ngir yàlla war suuli su ma la rombatee maa ngi lay ñaan nga woo ma rek ne ma man la bu sa wàdd ma ñëw nuyu la jox la ñaari loxo yàlla xam na loolu waa ñëw ma dara loolu du ma def loolu mukk xalaatuma ko jërëjëf kooku mooy Baye Balla Mboup monsieur Wade kii xam naa ne nga koo xamul bu kii xam naa ko bu baax waaye kii kenn du kii moo gën a modeste si làmb ji moom Baye Balla Mboup dèjà ñaari xale yaa ngi ci Boy Lo ki nga xam ne nii moom mooy Max Kerzi Boy Lo Maxi Crézi Boy Lo course ba ngay wax ak moom. yow da baax rek waaye kenn gënu la badu. kenn du yow. Baye Fall nga kenn gënu laa modeste. kenn amul benn solo. loo fi jaay am na ku ko ëppalee. te yow meloo neen sax. li fi ne mooy nga koo gis nga respecté ko. jox ko cër bii mu moom loolu moom mooy àdduna te nit yow mënoo nit nit ki lay seetaan loolu par force da nga koy jox cër jox ko respect bu nu sañoon tey képp ku ñuy seetaan wala nga ñuy déglu foo ne ñu fekk la fa jox la loxo wallaahi yàlla xam na ko bilaay badu arbitre bi arrêté na combat bi mi ngi bëgg a yàgg arbitre sifflé waat na sifflé waat na combat bi diggante Boylo ak Max Crazy ba tey avantage u Boylo la ndeysaan ba tey avantage u Boylo la kooku mooy Baye Balla Mbuum ndeysaan ñun mënuñu dara te le lépp lu ñu mën buñ buñ gisee Baye Balla Mbuub wala Modou Mbaye wala ñeneen walaay dañ koy fàtte. Max Guèze ak Boy Lo léetoo bi gën naa bar Max ak Boy Lo maksi dóor na jàppante loxo ci kaw ñoom ñaar ña ngay joxe latéral Max ak Boy Lo ar bi nee na ngeen bëre eh Max Guèze léegi doon na léegi benn bu direct bu dal. Max ak Boylo Boylo jël na ko jël na ko jël na ko waaye Max comprendre na loolu saa bu def daf taru moo ko gën a jot ay loxo ba pare moo ko gën a moo ko gën a na ko. laa ilaaha illallaah takk ko takk na ko Baye Balla. waa takk bi takk bi ndax dina ci génn. El Hadj El Hadj le grand coach mi ngi ñuy seetaan El Hadj Moussa Sy. El Hadj El grand coach. El Hadj ma nga ca géejewaay ndeysaan kenn du moom coach la. Eh, kooku coach international la. dafa doy waar lu mu la ci làmb téyal. dëgg la grand El Hadj lay kontaan bu baax. El Hadj tekkoon na waaye bàyyi na. waaw mais mais mais mais. Massi daa indi doole tey nag dafa indi doole ju rëy. ndeysaan booy loo jàmbaar la mu ngi bëre waaye tey Massi dafa xaw a dis ci moom mu ngi koy buux mu ngi koy buux mu ngi buux Max Kreuzi ak Boylo ñoom ñaar ñu ngi ci ndeysaan Boylo plaqué ko daga léegi plaqué bu rëy waaye Max Kreuzi mi daana la de ni mu bëree tey moo baaxul xaw ma luñ ko conseillé moom Max Kreuzi waaye ndaanal la li mu bëre tey mën na lu ëpp lool nañu bàyyi xale yu ñu bëre Max Kreuzi ak Boy Lo ba léegi ku nekk am nga sa ngëm morom waaye ñu mel na ngay buuxante Maxi Kërsi Boy Lo laa ilaaha illallaah Maxi Kërsi ak Boy Lo Boy Lo lépp looy def na wóor ndax mën nañ laa contrer Maxi Kërsi ak Boy Lo Maxi Kërsi Boy Lo waaye bu laa ma tolloo fii bu laa ma tolloo fii géwél rek mooy wax bu laa tolloo fii géwël yi ñooy tëgg ay làmb ju amul géwël ñaare xale yaa ngi ci ndeysaan lu xew ar bi attewaat na lan moo xew dañuy jël avertissement wala si Kërsi Boylo lan moo xew ari baa ngay wax ak ñoom arbitre bi sifflé na combat bi ndeysaan yéen ñaar bëri leen nag arbitre bi am na compréhensif ña ngay joxe latéral Boy Lo ak Max Kerzi ña ngay xeex laa ilaaha illallaah Boy Lo ba doo daanu ña ngay xeex eh Max Kerzi jël décision mu ngay xeex ak moom Max Kerzi Boy Lo Max Kerzi Boy Lo Max Kerzi Boy Lo Max Crèce nag daa mel daf maa dégg nag ndax li mu mën ëpp na lii ma koy dóor ci biir bi Max Crèce booyloo booyloo Max Crèce bi ngay dóor ba baax na yaa ngi dóor ci loos loos règlement daf koy tere Max Crèce booyloo Max Crèce booyloo ku nekk ak ma ngem Boy Lo am na lu muy wàcc Boy am na lu muy wàcc Maxi Crézi ak Boy Lo laa ilaaha illallaah loolu doon laaj mbott bi dóor tànk laa ilaaha illallaah Maxi Crézi ak Boy Lo ku nekk yaa ngi def ay pexe Maxi Crézi ak Boy Lo ku nekk yaa ngi def pexe waaye dara su teegul ñu ngi koy buux Boy Lo ñu ngi lay puus waaye Boy Lo bañ na ma nga si kër si Boy Lo ma nga si kër si Boy Lo. mais seen combat bi mujjee naa yàgg ah. bu yàgg. waaw ah, combat yi mel nii da ngay dem ba amateur yi dañuy découragé am na combat yoo xam ne bu ñu bu yàggee sax du wàññi dara parce que am na combat yoo xam ni xale yi dañuy bëri dañuy xeex ba stade bi gars yëpp taxaw avertissement. Boy am na avertissement. Boy Lo am na benn. ah man dama comprendre li mu def lu mu doon léegi Boy Lo jël jël na benn avertissement Max Grési am na trois avertissement ñoom ñaar da ngay lay ba léegi dara xewagul waaye nag dimaas dimanche la ñu jëm ak samedi ay lamb yu am solo fii lay xewee ci arène nationale. Mbégué maa ngi lay kontaane bu baax a baax kooku sama lépp la daa daa jël tawam tuddee ma aw ma sa fay nee na doomam nga sama lépp la daa jël doomam tuddee ma Mbégué maa ngi lay bu baax mu koy plaqué laa ilaaha illallah eh, ñoom ñaar mag si xalaat naa nga jëlaat benn avertissement de Mbégué maa ngi lay kontaane sama doom ji di nuyu sa bu baax mais bii nga Sarr ak sama séeri Maguette Maguette maa ngi lay nuyu ak sama doom jooju Badou Mbaye bu ndaw arbitre si loolu ki nga xam ni nag moom mooy Max Kerzi am na quatre avertissement booy loo am benn ña ngay jox latéral Fatick maa nag ñëw na booy loo Max Kerzi booy loo Max Kerzi ba léegi ñu ngi ci waaye maa ngi kontaane ñëpp mbokk yi nga xam ñoom may si TikTok bi aw ma seen fay waa 100 pour 100 Badou Mbaye fu ma àgg yéen la ndeysaan Max Gerzi ak Boylo Max Gerzi Boylo Boylo door na jël na ko jël na ko da koy daan da koy daan wala da koy daan wala laa ilaaha lu xew lu xew arbitre bay baal lamb jeex na day jeex. day jeex day jeex day jeex mais nag fi làmb ji toll arbitre ñu bëri nag dafay jeex dafay jeex jeex na victoire pour Boy Lo. Ah, victoire pour Boy Lo. Boy Lo ndeysaan daan na ki xam ne moom mooy Max Kerzi par décision arbitre Max Kerzi dafa am li nga xam ne moom mooy cinq avertissement waaye Boy Lo kontaanul de. non kontaanul mais lan lay mais lii par force la parce que règlement bi moo ko wax boo amee cinq avertissement mooy ñàkk nga cinq avertissement kay ku ko am ñàkk nga. yow kay xanaa boo kontaanul xanaa amateur yi tamit wala waruñoo kontaan ñoom ñu dagg seen biir a ah, lamb moom garaawul bëri nga ah daan nañ la par avertissement mais santal yàlla. esaan loolu am na solo ñu koy félicité bu baax moom Boy Lo ñu koy félicité bu baax baax waaye xam naa ni kontaanul waaye loolu mooy làmb ndam moom ndam la rek ak noo ko mën a amee ñu ngi koy félicité bu baax waaye nag di félicité bu baax Goye Salam bay bala Goye salaam ñu ngi leen di félicité bu baax baax a baax a baax wax naa ko léegi bi ñuy tàmbali wax naa ko léegi bi ñuy tàmbali ay supporters la ñu woon ñu dem ba nekk amateur tey ay promoteur lañ ci biir làmb ndeysaan ay promoteur lañ. ndeysaan tey ay promoteur lañ ci biir làmb nga xam ne bay bala am na lu ñu yokk ci làmb bu ëllëgee Boy Salam bu ñu nekkee leneen ci làmb mën nañ ko xaar am na lu ñu yokk ci làmb ñu ngi leen di félicité bu baax a baax a baax et eh, ñu ñaan nag sponsor yi ñu ñëw jàppale leen président Gorondo yi nekk sponsor jàpp ndax moom amateur la tey boo xoolee Baye Balla ay journée yu neex moo fi am ay journée yu am solo grand combat bi rek. daanaka moo nekk combat boo xam ne jël amu ci te ñoom ñaar ñëpp ay jàmbaar lañu waaye di la kontaane bu baax a baax a baax Baye Balla. maa ngi lay kontaane bu baax baax. Badou Mbaye ñaanal jàmm bu baax. gars yi wax naa ko làmb luñ ci mën rek Baye Balla Baye Balla làmb lu ma ci mën rek yow la. ndeysaan. lu ma mën ci làmb rek yow la yàlla xam na ko. yow kon maa ngi lay kontaane bu baax di la ñaanal jàmm di la ñaanal tawféex képp ku ma bëgg rek na ñaan Baye Balla mi si borom yàggal ko fi. ndax sa xol bi amul kaani ñu ngi lay ñaanal jàmm bu baax a baax a baax et eh, di la ñaanal ñu déggal fépp ci àdduna. bu yàlla baaxal eh, la ngi ni yow. waaw loolu day ñëw seede mais FM Sénégal FM Sénégal xoolal li yàlla def gis nga lii démb la woon. <laughs>